ku nekk dem xeram ku nekk dégloo xelam. d'accord. ok un moom mooy ni nga ko waxee yéen de de euh, pour ñu tas Pastef. Mhm. pour ñu tas Pastef. loolu loolu loolu euh, amul bopp amul génn quoi. Mhm. c'est c'est c'est infondé. parce que actuellement nii Ousmane Sonko. Mhm. moom mooy leader Pastef. moom lañu. di dissoudre euh, ki nga xamante ne moom mooy Pastef quoi. ah. ma ne solution bi quoi dissolution bi. waa solution bi ñuy wax nii. ay mhm. dañuy kii Pastef parce que euh, euh, Ousmane Sonko moom moo euh, ni ñu koy waxee Ousmane Sonko moom mooy leader beeg lépp ok final boobu ba léegi d'accord nañu. Mhm. xam nga juge juge maa xam teg na ay daan def yóbbu nañ ko defeere nañ ko affaire yooyu yëpp kooku yëpp beneen beneen beneen affaire la. mais dissolution parti Pastef mhm. ça n'a rien à voir ak loolu xam nga mhm. lii ay accusation la xam ne dañ ko teg ci ndoddam ci ndoddam lañ ko teg tegu teguñu ko ci ndoddu Pastef en pro Pastef en écrit est-ce xam ne la lii décision bu bu bu bu boo xam ne nii am amul sens quoi amul sens quoi man xaw ma ñu nekk Afrique la xaw ma ñan la mais lii dafa amul sens c'est infondé bu fekkee ne dañoo teg ay tuuma ci Ousmane Sonko ñu jël ko defeere ko. Mhm. xam nga li ma la. Mhm. kookaas loo loolu sa loolu day day concerné Ousmane Sonko ak ses avocats nan la ñuy def ba génne ba génne ko. mais ñoom dañu jàpp ni mais euh, d'après euh, communiqué bi ñoom dañu ne euh, li nga xamante ne si damay wax rek li nga xamante ne ñoom loolu la ñu wax ci communiqué bi quoi pas pour wax leneen mais ñoom dañ ni que dañ ñoom seen parti bi la ak yoon ak yu demee noonu ñu wax te Ousmane Sonko moo jiite boobule parti nee nañ ñoom loolu la teg ba tax ñu dañ koy dissoudre quoi ñoom loolu la ñu teg comme li nga xamante ni si moom mooy seen ay raison ma ma ma ma ma ma loolu mais mais mais yow mais loolu mais loolu mais loolu du loolu loolu du raison mhm. loolu bu fekkoon raison la euh, euh, waaye Macky Sall du toog loolu loolu bu fekkoon raison la Macky Sall du toog bu fekkoon loolu raison la euh, Ablaye Wade du toog man je me rappelle man bu ma nekkee Sénégal Ablaye Wade jamonoy Ablaye Wade la woon Ablaye mhm. Wade daroon da daroon daroon daroon génne ay ful est-ce que xam lu ma wax. Mm-hmm. mais Barthélémy Barthélémy Barthélémy Dias attaqué nañu siège am mu tiire bal rey nit. Mm-hmm. si ou non. Mm-hmm. mais lam moo gën a garaaw loolu ah. te pourtant ñoom seen parti mu ngi existé ba léegi. xam nga dafa am loo xam ne nii c'est déggable ak loo xam ne nii c'est pas déggable quoi est-ce que xam nga ni ma la wax. bu fekkee ne Macky Sall moom moom moo génnee benn arrêté ne dañuy dañuy dissoudre Pastef boobaa ñun après Pastef Pastef jël jël beneen voie de recours. Mm-hmm. est ce xam nga la ñoom euh, état Sénégal munul wax a wax wax wax a ba Pastef du bokk ci élection yi loolu amul benn base juridique wala base bu bu bu xam ne taxaw na boo xam ne nii mun nañu tef ba. Pastef du bokk ci élection deux mille vingt quatre yi loolu c' est c' est impossible. Ah, c' est impossible Ousmane a mën na euh, nekk kaso nekk kandidaa bu fekkee bu fekkee tamit li ñuy wax noonu dissoudre parti boobu noonu appliqué nañ ko aussi tamit ban ban ban yoon la waa ñooñu ba mën a jaar muy leader Pastef fi ba mën a euh, mën a bokk ci euh, élection yi pas mën nañ ci bokk sax ndax mën nañ ut yeneen yeneen voix mais pas sur le nom du parti du parti Pastef. ma si si. mun na hmm. nekk. si si si bu la ne bu xolo bu la bu xolo boobu sax moo dàq far. Hmm. mais boobu moo dàq ñu ñu ñu ñu ñu dindi ñu ñu ñu dindi turu turu turu Pastef bi ñu ñu xoolal ñu ñu déposé ci beneen ci beneen voie. ah mais loolu bu ñu ko defee est-ce nekk ndam tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy gouvernement bi. bi Sénégal bu Sénégalais jëlal alo allo oui. waaw. ma ne boobaa bi Sénégalais yi jëlal jëlal gouvernement Sénégal yëpp. ci mhm. dafay répercuté wu ci loolu. Mhm. xam nga man maa ngi maa ngi ñaawlu maa ngi ñaawlu ay action yu am Sénégal loo xam ne ni tey jii Ousmane Sonko jiwu ko opposition bi est xam lu ma la. man mhm. loolu laay ñaawlu quoi man sama douleur man sama douleur du question lu ñu yóbbu Sonko euh, yóbbu ko à garde à ma affaire yooyu mhm. mais mais euh, comme par exemple euh, Sonko euh, opposition bi nu ñu nu seen taxawaay man laay ñaawlu quoi man laay ñaawlu mhm. man laay ñaawlu euh, démb ci tribunal bi kii rek laa fa gis quoi comment comment on on on on l'appelle encore Euh, te mu nekk Médina. Mhm. Euh, kii tur bi laay moom moo yore euh, tey xaw ma tur mhm. moom laa gis mu ñëw dugg après ñu laaj def koy demande après ci lañ ko bàyyi mu duggaat quoi est-ce xam ne ma wax. Mhm. xam nga mais dama ne la. lii gis nga lii Macky Sall day rey boppam rek day sonal boppam. état au pouvoir bi di sonal seen bopp ak yooyu noonu mais changement par force dafay am Sénégal par A ou par B est xam ne ma la mm-hmm. xam nga lii lii xoolal gis nga lii sunu gàcce réew la quoi sunu gàccee réew la quoi lii nii xam nga parce que les Européens actuellement nii da ñoom ñoom seen analyse xam nga mooy lan ils ont essayé waa ils ont tout essayé ils ont tout essayé génnee wax ay affaire ay wax ay affaire Adji Sarr wax ay affaire Mbaye Niang wax ay affaire lii bay mujj ci ay affaire téléphone quoi xam nga loolu xam nga xam nga muy nasaraan beeg muy nit ki boo koo ko waxee boo ko waxee nit daray dem ba dul yow gëm quoi du jox crédit xam nga lu wax mm-hmm. da ngay da ngay amati doo doo am crédibilité ci ci ci ci ci kanamu ñun ñi quoi Mm-hmm. est-ce que lu ma la mm-hmm. l'état gis nga dama leen état Sénégal dañ leen jox loxo dañ leen jox loxo ñu euh, nuñ ko xam nuñ ko waxee dañ leen jox loxo ñu jël ñu jël ñu ñu jël euh, euh, yaram bi yëpp xam nga mm-hmm. su ministre su ministre su ministre su ministre de la justice se permet moom di génn di déclarer naan ay dañuy dissoudre Pastef moom loolu du compétence lool mhm. du competence am nañu xam sunu droit nañu xam sunu nañu xam sunu àq ak sunu yelleef dama ne la sàcckatu ginaar bi sax bu boo ko jàppee yóbbu ko police barke Rasulaay balaa mun a wax dafa war a woo avocat am wala sinon du wax mhm. sinon bu waxee lim fa lépp lum fa wax c'est pas admis mhm. xam nga ma mais jàpp jàpp nit soo bindee Facebook ñu tëj la Mm-hmm. soo joxee sa opinion ñu tëj la xam nga. Mm-hmm. booy démb soo gisee génn ñu dañ dafa am ñoo xam ne dañuy ragal génn parce dañoo dañuy am nañuy tiit mais mënoon nañu génn marche pacifiquement am nañ ki am nañ droit boobu ne li ngeen tëj sunu sunu sunu sunu candidat ñun ànduñu ji. Mm-hmm. xam nga sëñ bi. Mhm. na na état Sénégal revenir à la raison parce que euh, bu revenir à la raison moom moo arrange ñun parce que ñun nekk ci dëkk bu ndóol dëkk bu ndóol la ñu nekk Macky Sall il est il est en train de partir xaw ma mhm. ndagam dafa bëgg toogaat ou pas parce que parce que su même fekkee daf buggu lool tamit mënul nekk mhm. est-ce que xam ne ma la kon nañ jéem a defaraat suñ toogaay Euh, euh, gars yi nekk ci opposition bi ñu ñu xam ne ne Ousmane Sonko seen nawle la Ousmane Sonko seen nawle la il a tout fait pour pour pour eux il tout fait pour eux. Mhm. xam nga bu fekkee ne dañoo bëgg dissoudre Pastef mais fii euh, élection législative nu mu tudd législative li am na moom mooy ñi mënu woon dem. da dañoo indi xamoo am nu nuñ koy nuñ koy woowee loolu mooy ñi dem euh, mooy mooy député kii ni loolu nuñ koy woowee. en français. mooy comme par exemple député yi dem euh, député yi dem yoo xam ne nii nekk ñu woon au au au premier rang. les suppléants wala. waaw waaw waaw waaw waaw les suppléants. yow mhm. nga yaakaar ne Pastef amul ay ay ay ay suppléants. Hmm. kon daal jàpp nga ni pour l'instant Pastef am na plan B. xam nga mais sa Pastef Pastef du Ousmane Sonko rek mhm. du du Ousmane Sonko du boy boobu noonu du kii Pastef derrière y'a y'a y'a des des milliers y'a des milliers yoo xam ne ni ay intellectuels la ñu ci ginnaaw ñoo xam ne kenn xamu leen. Mhm. loolu xoolal dama ne la y'a de milliers de gens yoo xam ne ni ay intellectuels lañu. ñoo xam ne am na ñoo xam ne sax ci état bi la ñu bokk. Mhm. xam nga moo tax état bi dañoo war a revenir à la raison ñu bàyyi booy booy actuellement nii booy seen problème mooy génn Sénégal jël gaal gi euh, ñu bëgg leen teg tegaat leen beneen fitna bi encore xam nga li ma la wax. Mhm. seen espoir maa kii mais Euh, euh, comment man je man dama lay demandé rek benn question. Mhm. mais yow tu es sûr que ne Ousmane Sonko bu demee élection day gagné. Mhm. xam nga wóoru la. Mhm. mais wóoru mais kon moo tax ñu koy ñu koy bund xataal nii di ko koñee di ko kii di wax ay sondage ak affaire yooyu noonu mais sondage ay sondage yi loolu loolu loolu ce sont des paroles kuy falu yàlla rek ko xam. kii falo bureau de vote yi ñoo koy jugé xam nga kii falo bureau de vote yi vote yi ñoo koy jugé Ablaye Wade ay nit milliers de personnes topp nañ ko fi mais après euh, euh, euh, Macky Sall gagné ko mhm. xam nga xoolal affaire bundu xatal yii lañ war a teg ci suuf nañu war a teg ci suuf gis nga opposant opposant gis gis nga Mimi Touré Mimi Touré ñu ngi koy wax lu nekk mais barke arxuraan jigéen bu am jom jigéen bu am bu bu man man boog man man man man membre passif maa ko wax man ah Mimi Touré Mimi Touré Mimi Touré elle est honnête barke arxuraanu karim parce que moom postam mu mu géré woon dañ ko doon jox ay ordre mu koy exécuter mais loolu war warul tax ñu ko ci tam dëmm quoi mhm. démb moom kese moo génn moom moo génn wax moom moo génn wax yeneen opposition yëpp dañoo ñëpp a ñëpp a lem seen toog ci parce que ils on peur de Ousmane Sonko mhm. dañoo ragal bokk ak Ousmane Sonko ci élection yii nii nañ wax dëgg bi te dee mhm. ñoom ñëpp am nañ ci part de responsabilité non ñoo noo noo ñoom ñëpp mais am na ci ñoo xam ne am nañ ci part de responsabilité loo boo xam ne nii ñoom ñoo xam bu ñoom ñoo xam bu daay bi. pour ñu yóbbu Ousmane Sonko prison. Mhm, jërëjëf. est-ce que comprendre ma la. jërëjëf. Mhm. parce que bokkuñu bugguñu bokk ak Ousmane Sonko ci course bi parce que xam na ne Ousmane Sonko da leen di raw. jërëjëf. xam nga maa leen di nuyu maa leen di nuyu yéen ñëpp euh, boo boo boo gisee paasan nga ne ko raas mu ngi lay nuyu. incha allah man euh, damay dégganteeg moom. Mhm. xam nga ma damay dégganteeg moom vraiment. Euh, mooy mhm. loolu daal mooy mhm. nañu nañu nañu nañu jullite ñaan rek quoi moo am solo quoi. merci waaw maa ngi kontaan trop maa ngi suivre émission bi man à chaque fois damay émi damay suivre émission bi. et xam nga ma la waaw maa ngi suivre émission bi chaque jour. xam nga euh, l'essentiel daal. yal na leen yàlla yokk gaal si ngeen jëm ci kanam quoi. amiin incha allah. merci beaucoup jaajëfal ko bu baax a baax euh, euh, waxtaan bi am na solo lool yëkkati na ay kàddu yu am am solo mu ngeen def nii moom ngeen jaax ci numéro yooyu comme ni ñu koy defee saa su ne rek numéro yu affiché ci baax d'écran bi ngeen daal di wax li nga xamante ni moom mooy euh, seen gis-gis ci tolluwaayu réew mi rawatina li ñuy waxtaanee tey mu nekk li nga xamante ni moom moo xew ci réew mi démb ñu gis ko le président nu ñu koy waxee rek leaderu Pastef boobu di Ousmane Sonko moom moomu ñu daal di koy placer sous mandat de dépôt ki juge Maham Diallo ginnaaw bi nga xamante ni si procureur teg na ci ndodd kii di Ousmane Sonko ay euh, tuuma yi nga xamante ni si euh, bari na ci ginnaaw ba nag lañ ko auditionné fële ci tribunal bu Ndakaaru ñu jël mbokk mi nekk ci ligne bi asalaamaaleykum. ay salaam. sëñ bi nuyu nañ la. ñu leen di fay ñu nuyu ñëpp. Mhm. Ah, Sénégal moom li ma bëgg a lii nii. Mhm. buñ ko mooy dictature buy continuer mhm. dictature buy continuer la ndax Macky Sall bëgg mooy dina fi jóge waaye moo ñuy tànnal kan moo fiy toog mhm. <coughs> est-ce que yaa ngi comprendre mhm. Macky Sall moom dafay jóge nangu na dafiy jóge waaye moom mooy tànn kan moo fiy toog te cooli cooli ñi ñuy wax ni Mamadou Dia nii ko defoon tëj ko bi ko sawee di tëj da tëj ba doyal ba muy génn fekk na mu màgget Ousmane Sonko tamit loolu lañ ko bëgg a def buñ seetaanee dañ koy tëj ba bu màgget ci kaso bi. Mhm. système bi di continuer. Sénégal nag ñooy tànn bu ñu bëggee démocratie wala dictature ñu xool ban moo leen ci maa ngi nuyu ñëpp di jegul ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah merci beaucoup ci intervention bi. Euh, jaajëfal ko bu baax a baax euh, mën ngeen jaar ci numéro yooyu affiché ci baax d'écran bi euh, ngeen daal di wax li nga xamante ni moom mooy seen gis-gis ci tolluwaayu réew mi comme niñ leen wax sànq rek kii di le leader de PASTEF Ousmane Sonko ñu daal di koy placé sous mandat de dépôt démb le ko le juge daal di koy teg lu ni mel ginnaaw bi ko procureur tegee ci ay ndoddam ay tuuma yu bare bare boo ko ci li nga xamante ni si moom mooy vol de téléphone association de malfaiteurs force spéciale yeeg yu bare bare la teg ci ci a ginnaaw bi nag lañ ko euh, jébal kii di le juge le doyen des juges démb nag la ko auditionné daal di koy placé sous mandat de dépôt ba jamono ji euh, information yu jot moom leaderu Pastef boobu euh, tisootur nañ sax li nga xamante ni moom mooy partem bi mi ngi fële ca prison bu Sébikotane salaamaaleykum mbokk mi. maaleykum salaam sama càmm mi na nga ñu ngi fi. ça va yéen Sénégal yi dama leen mere man États-Unis laa nekk. Hmm. mais yéen journaliste Sénégal dafa mel ni jàngu leen parce que li Macky Sall di def du hmm. droit politique la Macky Sall deful droit politique lay def Macky Sall li ko fi dese ci nguur gi bariwul Sonko du yàgg prison dina génn man sa yooyu yëpp taxul ma woote hmm. man dama am trois points yi ma bëgg a def damay wax ak patriote yi bu ñu découragé c'est pas la fin du monde Sonko xaw ma il a quarante neuf ans man quarante neuf ans Sonko maa la wax barke yonante bi man lii dama ko gëm Sonko dina mës a toog ci bopp Sénégal bi xaw ma na kañ lay beneen bi nañu mobiliser wu suñu bëgg nañu desu sa maamu Pastef on s'en fout man sama adresse dinaa ko jox Antoine John na ñëw ba Amérique te dindi Sonko sama bopp loolu du musa am on peut exister on va faire tout présidentielle bi 2024 mhm. waa Pastef ils sont majorité au Sénégal ils peuvent choisir le président qui va venir Macky Sall il n'est pas un homme du góor Macky Sall sooy xoox xeex ak sa moromu góor da xeex ak moom face à face doo jël kiiw état di ko xeexee sa kiiw politique man loolu Macky Sall wegguma ko ci du góor Macky Sénégal li fa xew tey li xew lii yëpp Marème Faye Sall la c'est elle qui décide Mais dans six mois, Inch'Allah, le Sénégal va quitter dans cette terreur. beneen bi may Khalifa Sall ak Barthélémy Dias mhm. yal na leen ak ku Sonko dal lii yëpp ñoom la si c'est une deal qui s'est passée depuis l'année passée dañ doon xaar moment bi pour def ko man de Sonko tey laa ko gën a bëgg Sonko man tey su ma doon judduwaat ñëw dinaa ne yàlla na def Sonko nekk sama papa Sonko góor dëgg la jàmbaar dëgg la Sénégal nag li li def Sonko man dinaa la wax dara vous tous vous allez payer pour ça Sonko dina dal Sénégal yëpp parce que dama am ay nit yu toog seen kër ne suñu yoon nekku ci di ngeen xiir di ngeen mar di ngeen mille francs suukar mille frontières yan na mbugalu yàlla daanu ci Sénégal ndax li ñu def Sonko man loolu laa leen yéene nga baal ma nag sama càmmi au revoir merci jërëjëfal ko bu baax a baax Euh, mën ngeen jaax ci numéro yooyu affiché ci baax d'écran bi ngeen wax li nga xamante ni moom mooy euh, seen gis-gis ci euh, tolluwaayu réew mi li ñuy waxtaanee tey bokk ci li nga xamante ni moom moo xew demb ci réew mi nekk actualité bi gën a faa di kii di président Ousmane Sonko mi nga xamante dañ ko placé su mandat de dépôt ni ki démb ki ko def di le juge Maham Diallo ginnaaw bi ko procureur jébali ay documents yi nga xamante ni si moom lay toppee kii di Ousmane Sonko bokk ci ay tuuma yu bëree bëri yu mu teg ci ndoddam ginnaaw bi nag la ko le juge Maham Diallo daal di placé sous mandat a dépôt bi mu ko auditionné démb ba pare la ko daal di def ba ñu ko di ay information yu jot sax moom euh, Ousmane Sonko mi ngi séjourné pour le moment ca euh, prison bu